ñëw non point bu ma romb damay fekkee autorité bi taxaw ma xam ne ñii ñu leen dem xaar mais dama bàyyi ñëpp foofu pour ñëw pour bis bi taaru pour nit ñi teel a xam ne lii foo la réer la espoir la ku taaru nag da ngay rus man opportunité nga xamante ne moom nga léegi am di ngay ñàkk gaa waxuma la nii bakkan dama koy teg dama ko ñàkk dama koy lii dama ko yóbbu jaaw te ko foofu ba ba mu ñëwee bu ma jàppal bis yàqantiwuma amuma ñaanuma dama koy jël si ndànk dem su ma yoon bi kañ la. 24 doo ko indi nii nii nii nii nii di boole ko dafa amoon di yëngal si bi fii dafa am amee. revanche fii bi ko demee di ko def sax bëre. non man moom instant yii ren di jéggi nag ay kii yooyu amul quoi ay revanche non la ma lay daan man maa la ko joxaat bu ma ko joxaat laa bële. si bi fii laa la wax. di def MMA. déggu ma. lu wax ji gën a bari bu gën a bari. lii moo tax nga xam ne yow da nga wax si bi. Ababacar Ababacar Mbaye Modou Lo personnel loolu jox inspiration bi.